ñu bëri xamuñ Tonnerre 2 ci lu mu nekk ñu bàyyi ko mu nuyoo tone nuyu naa la. maa di fay maa nuyu ñëpp di nuyu waa wasaare làmb gi di kontaan seen teewaay fii ci kolobaan di nuyu sama waa kër di nuyu sama tante bi nga xamante ne si moom laa nekkal fii muy Maguette Faye di nuyu sama xarit Aline ñu gën koo xam ci Ibrahima Khadim Dieng di nuyu suma gaa yëpp di nuyu sama mbokki mbër yi ma dekkal nag ku ci mel ni suma rak koña maa ngi koy ñaanal yàlla suñu borom may ko ndam ci combat bi mu jëm di nuyu Thiaw Star Mor Kanka trompeur Caatu Njaan mm, armée 2 di nuyu suma gaa yëpp daal Tafa Mbër numéro 2 maa ngi nuyu ñoom ñëpp di nuyu waa kër gi yëpp mère Dieye Aïda Diallo Fatou Mody waa kër gi yëpp maa ngi nuyu di nuyu waa sama waa dëkk nag waa Touba Newraan gi nga xam fa laa juddoo yaroo fa màggee fa jàngee fa baa ba toll nii ma toll maa ngi nuyu ñëpp daal waaw. mbëri daal nuyoo moom bakkoog ñoom ak sant ak gërëm boo leen joxee dinañ nuyoo dinañ sant dinañ gërëm lii kat xamul lan la mais Tonnerre 2 la moo tax ñu gëj laa gis. waa li tax ñu gëj maa gis nag ku ci ne xam na ne euh, dëkk bi dafa changé ndax ku ci ne xam na ne li baax lépp corona moo ci toog moo toog ci lépp di nuyu sama doomu ndey jooju bàyyi ji li waaw borom sañse yi seen waa du dara yow ni mu xaadim yow baaji li ni nga mel moo la def noonu moo la jox ngay sol te doo fay yoral nga ko lu bari Tonnerre 2 nag euh, maanaam comme li ma la rek corona moo toog ci lépp. di ñaan yàlla suñ borom mu jëlee ko fii waaw Tonnerre nag euh, combat bu mujj euh, daf ci jële defet waaw boobu ba léegi nag waroon na amaat combat ay comba taxawoon na sax mais xam nga corona bi moo ci toog quoi waaw. bi corona bee toog mais dañu fan yii passé déggoon sa benn komba boo xamante ni daanaka taxawoon na mais ñu dem ba ci biir déggatuñ ci dara lan la woon loolu lan moo yàq combat bi. waaw combat bi taxawoon na sama combat la ak Bulldozer du daanaka de dafa taxawoon sax ba desul lu jot avance. Mm-hmm. waaw mu ngi nekkoon grand combat mais par la ci biir wax ji ma déggaat ne moom dafa tourné dem jëli jiin bu yoof comprendre nga. Mm-hmm. Bulldozer nag sama combat ak moom mosu ci sawar. mosu ci sawar mosu ci sawar ndax euh, bi ñu woowee Bargny. Mhm. samay mbokk ngi toog ñëpp toog ñu ne ma ndax pare nga pour bëre ji Bargny man leen bu dee Thiès sax pare naa pour bëre ji Thiès euh, ci kii bu njëkk bi ci discutation bu njëkk bi dañoo bañoon ne du ñu bëre ji Bargny mais man maa leen woo ne leen comme dafa am ci lu ma jóge mhm. ah fépp fu mu bëgg ñu bëree fa ñu bëree fa bu bëggee ñu bëree ci buntu këram sax dañ fay bëree. waaw combat boobu daal moom moo dem jëli jiin bu yoof waaw jiin bu yoof it d'accord a bëreeg moom waaw. kon yow daal su ma juumul daal pare nga pour bëreeg moom mais moom daal mooy xaw a nekk di laam-laamee yu kenn xamul. waaw buñ nee jiin bu yoof moo daan tonnerre ñu ne Bulldozer ak tonnerre taxaw na. Hmm, na ma yàlla baal staffu Bulldozer euh, jiin bu yoof nangoo dem jëli Bulldozer mi nangoo ba rek ah sëñ Fallou loolu arrangement am la rek laa yaakaar. ah. yow daal da ngaa ne daw mais boobaa ak léegi est que dox nañu fi sa combat yow ak keneen. nekk nekkuma fi pour bulldozer rek. waaw sama combat yi ñuy dox bari na. waaw sama combat yi ñuy dox bari na. Hmm, Jokkel bu fatik sama combat ak moom yaakaar naa li ci des sax bariwut waaw li ci des bëriwut ndax ñu ngi ma doon ñu ngi ñu ma doon proposé Jokkel bu fatik waaw am na ay yeneen mbër nag yuy toog di wax ci Tonnerre waaw mais boo tuddee seen turi fii sax day am leneen lu muy niru. ah déet buñ toogee di wax ci Tonnerre tey boo waxee dellu ci ñoom kay du du ki jokkalante kàddu lay nekk rek. d' accord jokkalante la mais am na làmb day toll foo xamante ne si euh, day laaj nga séentu sa ginnaaw waaye ku ci ne xam na ne ay abu Ndiass yi di laaj Tonnerre ay kii kii Alioune Sèye Junior Bébé Saloum 2 ñooñu Tonnerre bu ne ci jafe-jafe la rek. mais yàlla baax na mais dama jàpp ne gars yi. demal leen xeeb da ngay Abu Ndiassé. Abu Ndiassé Abu Ndiassé Abu Ndiassé bokkuñu yoon sax bokkuñu yoon Abu Ndiassé defu fi dara. defu fi dara defu fi dara Bébé Saloum moomu daa baax rek di wax waaw mujj na jël sibel sax mais nag dama jàpp ne gaynde bi doon nelaw gaynde bi yee woon comme dem na booy nelaw ah loo ragal ragal war ngaa mën a def benn cesse sax pour mu kii. dangaa fi mu toll ñoom ñu yëngu. waaw yëngu moom dana am force la yëngu hmm. dana am force la parce que allah kulli aali man dinaa bëri budul ñoom it di ñeneen waaw génnuñu ma baax palmarès ah génnuñu ma génnuñu ma génnuñu ma siiw ëppuñu ma mbooloo. waaw ëppuñu ma mais nag ci defet nga jóge ba tey kase yi may bëree mënuñu waa jóge ci defet làmb ak daanu ñoo ànd gëmuma daanu nag man daan laa gëm mais làmb dafa ànd ak daanu. mais boo daanoo da ngay ànd ak say mbokk nga dem defar jiwaat te am nañ yaakaar ne pare nañ waaw am nañ yaakaar ne pare nañ instant bi alhamdulilah. bu dul bu dul bu ñooñu ñeneen ñan nga yaakaar ne bu la andiloon seen avance tey tey tey nga jël ko. man instant bi bàyyi ma fi kenn képp ku ma làmb booleel dañuy bëre samay adversaire bari na ci làmb maa ëpp ay adversaire ci làmb mbër bu jóge ci defet moo ëpp ay adversaire dafa néew. samay. sorti dafa néew. ci lam non man ma def quatorze combats quatorze combats laa def quatorze combats trois défaites laa ci am. waaw ñi fi te maa leen daan samay morom musique bi muy bi départ fii man lañ ko jox. Potignan bi muy tëfi man lañ ko jox ah Youssou Ndour comprendre nga. Mhm. Hmm, comment dire Boy ñoom ñëpp bi ñuy tëfi tonnerre lañ leen jox. Sa waaw ay combat yi ma bëree bari na combat yi ma bëree dafa bari bi ma toogee nag lamb amul dara commencé métti lool dama boot sama saag dama boot sama saag ma ne xaaral ma dugg Casamance dem bëri ji Mbapat Casamance def naa fa un mois nangam di bëree foofu ay combat nommé ay combat Mbapat. di am parce que làmb ji métti na métti goo xamante ne si tamit boo toogee rek. di ànd yaa doon gis maa ngi fa doon gis donc fa doon gis sama ay ay ay ay Ibou Ndiaye joof yoor yi yëpp dañuy am foofu ay combat nome ak ay général Malika ku ci da nga am dëkk boo xamante ne si spécial ñoo la gérer général Malika am na dëkk boo xam spécial moo ko gérer ñoom ñaar ñoom ñaar daje woon nañ foofu waaw daje woon nañ foofu combat man maa bëri woon spécial bi foofu ñoom ñu bëri grand komba bi. waaw. mais gannaaw loolu fi mu toll nii ak fi làmb toll noo gisee làmb ji. làmb ji ñi ci war a dugal seen loxo dañ cee dugalu seen loxo ndax euh, ay ndaw bu ñu jiitoo dénk la dara. bu jël mbir moomu rek foog na yow yaa ko moom. te làmb mooy suñu sport national te dañu am ministre de sport muy Matar Ba ma koy lancé message di ko xamal ne ko ñun ndaw ñi moom moo yor suñu kàddu te làmb gët ba mu war a am non joxuñu ko ko joxuñu ko ko parce que ñun sport bi jégaaniwuñu ko dafa loolu loo xamante ni si ñun ñoo ko moomal suñu bopp mais niñ ci war a doxe doxewuñ ci parce que souvent nga gis sax làmb euh, waykat yi ñu am nu ñu def ak ñoom ñun mbëri kenn lijjanteegul suñuy mbir d'accord bu dee bu dee bu dee bu dee bu dee promoteur yi am na ñu def ak waa ñun mbëri yi nga xam dañuy ne ba bëgg a dee yaakaarum ci lenn dul làmb ñu jël làmb jël ko tege ko nee comprendre nga jël ko tege ko nee ginnaaw bañ ñee dañ ñoo defaral arène nationale tëjal ñu Iba joob Diop Iba da doon daw te Demba Diop mi ngi doon am lu tax arène national tey mënuñoo bàyyi mbër yi ah ñuy bëri ji foofu mbëri mag yi di fu bëre bu ñu amee bés bu mag comme li ñuy def Demba Diop te ñu ba gi muy daw ñu jël Iba Mar ko lam dama jàpp ne dañu jóg pour rey ko te làmb dafa dee ba pare sax bu doon doxe ñaari tànk benn ci des comprendre nga kon war nañu mën a jàppale ci làmb comprendre nga xool nañ la ñuy defee làmb ba làmb dem suñu yaa ngi ay moor Kanka yi ba lekkee avance su jàmbur yàgg na ay Koña de Koña mi ngi gàmbi di pare combat kenn xamut ban dat lay bëre kenn xamu ko waaw. mais est-ce que jotul mbëyu ndaw yi am métier. non ku ci ne am na métier moo jàpp. mais làmb dafa nekk loo xamante ni si suñu deret la nekk dañ ko bëgg ci suñu xol moom la ñu am leneen lu ñu mën di jàpp suba ba ngoon te làmb bokk ci day mel ni loolu du dara ci ñun mais nekkuñu ñoo xam ne dañuy yaafus toog defuñu dara déedéet ku ci ne am nga ci loo jàpp am nga ci loo yëngu tamit. ah fi làmb toll boo déggee nit ñi di wax naan huis clos ci làmb en tant que mbër nooy déggee wax jooju. loolu loolu xam nga loolu ay wax la man tonnerre personnellement man dama xam ne loolu du mën a nekk. loolu boo koy def moom da ngay jëflanteeg promoteur bi nga xamante ne sii moom moo fay mbëri comprendre nga. mais loolu tey même bu ko mbër mi nangoo promoteur baa ngi ciy dee. promoteur bi daf ciy gaañu tamit huis clos. mais huis clos est-ce que mbër bi am na ci choix moom mi nga xamante ni dañ koy jox ak na ko bëreloo est-ce que moom am na ci choix. mooy li ma la moo tax man la promoteur bi moo ciy dee. mais ñun li nga xamante ne si moom la ñu warloog promoteur bi mooy fay ñu temps nga fay ñu temps boobu ñu bëreel la. yaa xam da ngay tëj stade bi yow donc nga ne ca yaa xam mais dama da ñun maanaam mënuñu dem sans promoteur bi kon yërmande dañ koy am suñ diggante ak promoteur bi comprendre nga parce que promoteur bu bëgg a teg làmb amoo sponsor comprendre nga ñu bëgg a jël làmb def ko huit kilo dafay metti tamit dafay metti trop nañu xoolaat làmb nañ lañ koy doxalee yaa ngi dégg encore une fois Matar Ba comme moom moo mooy suñu mooy suñu njiit moo moo moo jiite walu sport bi comprendre nga mbër yëpp génn nañ ku ci mel ni Gris Bordeaux maa ngi koy nuyu ci côté bi mu côté bi mu féete booy ñaa suñu mag booy ñaa tafaatin xam nga suñu suñu suñu moom mooy suñu roi ndax moom la ñu am ci bawal comprendre nga ama seen ñoom ñëpp génn nañu ku ci ne génn nañ comprendre nga wax. war nañu am yërmande ci ñun te xam ne làmb moom la ñu am ci la ñu yaakaar pour teral ci suñu ay waajur ci la ñu yaakaar pour teral suñu ay am di jàmm mais bu ñu jëlee làmb defal ñu ko nii dafay metti trop waaw loxo nag maanaam loxo dina jëm gémmiñ te yuuxu mën na jib fees ko foogewul comprendre nga président ñun ci ñu ko fol ci la ñu bokk kon dañu am baat ci moom ñaan ko mu may ñu am yërmande ci ñun comprendre nga xoole ñu comme nu muy xoolee doomam xam ne tey maanaam ñu ngi souffrir parce que souffrir mënta ab weesu nga nekk ci benn benn benn benn benn domaine ne lii nga bëgg te loolu noonu mënta dem te bu ci dugalee loxo mu dem kon ñu ngi koy talal loxo dafa jot ñu ngi koy talal loxo mu dem li ci làmb ji mu avancer sama kaddu nag bu may wax mbër yëpp laay waxal parce que coono bi du tonnerre rek mbër yëpp mbër boo seeti woon tey dafay maanaam cent yi bu xëyee du ko yor comprendre nga. te làmb lañ yaakaar tamit. fan yi nag ñu dégg ne dañoo bëgg a fusionner écurie Ndakaaru ak écurie Fass euh, ñenn ñi sax nee nañ Tonnerre 2 mooy tête de file écurie Ndakaaru gannaaw fii ki ni jógee Malick Niang jóge fi ah kii di euh, Yékini Junior jóge fi booy bay jóge ne Brise de Mer léegi yaay tête de file écurie Ndakaaru nag ana waa Ndakaaru. waa écurie Ndakaaru bi mu ngi fii écurie Ndakaaru dafa bari ñu fa nekk. Tonnerre de sax moo ci gën a ndaw du ma d'accord sax ay tête de parce que man gëmuma yooyu. mais ñi fa nekk ñoo de file. non non Ndakaaru ay booya nga fa ñoom ante nga fa ñoom booy jobaas booy yu bëree ngi écurie Ndakaaru ay xale nag yu déggoo yu ànd def benn bloc comprendre nga écurie Ndakaaru nag ak écurie Fass dañuy booloo ak duñu booloo wax moom bu feebaree sax nopp ya koy déglu war a wér comprendre nga mais ñun li ñu décider. xam nañ jóob nag jóob man du ma am loo xam dama koy nebu wala ma koy làqu jóob li ko jële woon écurie Ndak écurie Fass. ba mu looy Diop kat ko jëlee woon écurie Ndakaaru écurie Fass ba mu ba mu sos écurie Ndakaaru moom xam na ko bu paree pour dellu. man dégg naa benn paa nee na ma mer moo ko fa jëlee woon te bu ko fa yóbbuwaatee est-ce que mer du ko fa jëlewaat est-ce que loolu ngay wax. waaw moom xam na ñun xamuñu parce que écurie Ndakaaru bi may ñëw écurie Ndakaaru maa fa gënoon doon tuut tànk ñu yëkkati ma teg ma ci loxo Sewru Fall sama nijaay Dece yëkkati ma teg ma ci loxo Sewru Fall Sewru Fall yëkkati ma teg ma ci loxo Kati ak Mbay Cissé ma nekk fa ndax écurie Ndakaaru jamono bi mu fay dugg dugg fa dafa metti parce que boo nekkut séeréer daawuñu la nangoo jël parce que daawul nangoo jël olof koo xamante ne si waaw comprendre nga bi fa yàq ya di nekk nanguwuñu woon jël euh, olof. sama dugg écurie Ndakaaru mi teewoon mais écurie Ndakaar laa defoon sama choix maa ngi fii Colobane bu doon écurie Fass laa def sama choix kon duma ma dem écurie Ndakaaru mën naa ko lijjanti sama bopp am naa pexe yooyu waaw. nga ko lijjanti sa bopp am nga pexe yooyu mais dama ne fan yi dañ ne da leen boole boole bi yéen nu ngeen ko gisee. waa boole bi euh, woote woon nañ ci réunion ñu war cee waxtaan jamono biñ ciy waxtaan. boobu dafa fekk ma am grand combat Casamance ci jour bi man maa convoqué woon ñëpp pour ñu def réunion mais ci jour bi dama mujj bàyyi réunion bi ñu ma koy ñu may kii para WhatsApp comprend nga mais moom Diop décidé na. réunion lan la woon réunion bi wala. réunion dañ doon réunion pour waxtaan toog ak waxtaan ci dem Fass wala duñ dem Fass yaa ngi dégg pour ñu xool lan la ñuy. mais loolu yow yaa woote wala katee woote. man maa woote réunion bi parce que damay dégg ci presse bi chaque jour maa may jot ay information wala bu ma jëndee journal gis ne euh, Fass ak Ndakaaru dañu war a booloo xam nga loolu c'est man te joolu jàpp ma ne lu mën a nekk la yaa ngi may dégg dañu am nag benn conférence de presse boo xamante ne si mbëri Ndakaaru yëpp dinañ toog wax ci li nga xamante ne si moo jëm ci wàll woowu parce que lépp lu ëpp nag tuuru te doomu aadama ñun li na ci ñun Jóob moo ko def ci ñun mais yaakaar naa yow du ma la may lépp nga bëgg a jël lépp comprendre nga te wat gaal ak yéegoo bu ñu demee ba nga xamante ne si dañu war a toog yaa ngi dégg dem ikiri ndakaaru job moo waroon woote réunion ñu toog mais du mbër ñoo waroon a woote réunion du mbër yi ñoo war a woo seen manager parce que Seydou Fall manager la ci ikiri ndakaaru mais du cëru manager kese lañ ko fa jox. du cëru ménagère Serou Fall dañ ko def comme dafa bokk ci dafa bokk ci écrit bi comprendre nga enterrement sax mooy jiitu comprendre nga moom la ñu woo xamal ko ne dañu bëgg a réunion ak paa bi ñu toog moom mu xamal nañu écrit Ndakaaru day day day day booloog Fass mais moom bi mu jëlee décision bi est-ce que woo na ci kenn ci yéen waxtaan ak moom ci loolu avant muy dem ci prince bi. ah loolu mën na nekk mën na nekk mu woo kenn mais man tonnerre personnellement man Diop woowuma ba fii may wax ak yow waxut ma wax ci. ci mbër boo xamante ne nekk na écurie waaw ci mbër boo xamante ne si mi ngi en activité ci biir écurie bi comprendre ñun nag dañu doon ay xale. ñëwoon fekk fi ay mag ñoo xamante ne si dañu fee def loo xamante ne si Sénégal yëpp a ngi ciy bàyyi seen xel teg ci seen bët ñun ci yoon boobu lañ nekk doon ay xale nag gëm suñu bopp di jóg ak daanu li ne ci ñun mu def ko ci ñun kon tey bu xëyee un bon jour ne dafay dem comprendre nga loolu yaakaar naa ne liñ ci war a gën a yaatal daal ci sama ci gàttal bu ñu defee suñu conférence de presse. mais mais mais mais avant conférence de presse est-ce que nekkul loolu mu leen defal noonu moo nekk li nga xamante ne day gën ci yéen parce que tamit équipe Fass ku ko xam ku ne xam ne université la. bés bu ngeen jógee Ndakaaru yegg foofu est-ce nekkul day yokk gën a yokk seen xam-xam. non li gën ci ñun yàlla rek moo ko xam li ci ñun yàlla rek moo ko xam liy xew suba yàlla moo ko xam mais ñun gëm-gëm bi ñu am gëm bi nga xam ne ñun moom la ñu am comprendre nga dañu gëm ne li ñu war a am yaa ngi dégg du ay dem écrifage moo ñu ko war a mën a may. loolu da nga yaakaar ne boog bu ngeen demee équipe fas euh, équipe bi dafay faf seey ñenn ñi dootuñ fa am benn tour bi ñu bëggoon am parce que dañ fay fekk ñoo xamante ni day nekk ay mbër yu mag ci ñoom est-ce que du loolu moo tax ngeen bañ a dem. non écurie Ndakaaru bu ñu nee écurie Ndakaaru Ndakaaru du écurie bu ndaw. non mais léegi amoon na ay mbëru VIP mais léegi écurie Ndakaaru amatul mbëru VIP. ñun ay VIP lañ. écurie nekkee VIP bokk nañ ci VIP. barke Serigne Touba ay VIP lañ. comprendre nga ñun ay VIP lañ suñu bopp lañ. tonné nañu waxante dëgg fi mu toll nii VIP booy booy lim moom doo génnee ah VIP équipe Ndakaaru kooku moom mënul nekk. waa xam nga tey albune la fa di ñuul xaw ma nañ lañ koy waxee noonu olof yi waaw. albune bu la fa di ñuul moo fa di ñàkk xam nga ñun ay gone lañ écurie Ndakaaru lañ nekk dañu gëm ne ñun la fa nekk ñun ñoo ko fa war a def comprendre nga te pare nañ pour pour pour pour pour nekk ci yoon boobu tamit ñu ci yoon boobu mais du ay cadre dañuy dem Fass wala demuñu Fass loolu li ma la rek dinañ ci toog. non su ma déggee ni ngeen waxee moom parewu leen pour dem Fass moom. dëggoo loolu dama la ne décision bi ñu jël. dañuy ànd ak joob dem Fass wala duñu ànd ak moom dem Fass loolu bu ñu toogee suñu conférence de presse comprendre nga dinañ ci wax. di ngeen ci wax mais am na wax yoo xamante ni soo ko déggee di nga xam fan la jëm parce que tey Diop. bu fekkee jël na décision jël équipe bi yóbbu ko faas maa ngi dégg ngeen naan da laaj ay kayit bu fekkoon nangu ngeen dem nangu ngeen dem coow lu du bàyyi li mu wax ci loolu ngeen ànd dem mais moo ngi wax ngeen génn fii wax ne tàgguwul kenn yéegalul kenn yéen a ngi woote waat te moom moo woon woote wax ji am na ñoo xam te ñii ñuy seetaan sax bu ñu ko déggee dañu xam ne tonnerre mi euh, li Diop di wax moom àndu ci. kaa ñu dem moom day fekk ki ngay woo mu bëgg a dem comprendre nga. kon wax ji leer na tonnerre bëggul dem. no du ma ne tonnerre de bëgg dem mais dama la ne. man li may wax dafay leer parce que man. man euh, yàlla dafa dogal ci man li may tiit ci sama kàddu bëriwul. comprendre nga li may tiit ci li may wax bariwul bu dee am na dama la ne bu ñu toogee pour def conférence de presse bu fekkee dinañ dem mbëri Ndakaaru yi dem damay wax nag ci kàddu mboru Ndakaaru yëpp muy anti. di booy Jobaas di xale yi nga xam ñoo topp ci suñu ginaaw parce que li topp ci suñu ginnaaw ñoo bari wala Fass da nga jàpp ne mbër yi fa nekk ñoo ëpp mbër yi nekk Ndakaaru. mais mbër yu mag yi fa nekk ñoo ëpp mbër yu mag yi nekk Ndakaaru. ñun ñun day wax dëgg yàlla dañu gëm ne yaa ngi dañu gëm ne ñun ci suñu li li nga xamante ni si moom lañ gëm objectif bi nga xam ne moom la ñu am gëmuñu ne yaa ngi dégg benn mbër gën nañoo kawe parce que suñu bopp la ñu gëm. mais man ma yaakaar ne Fass moo woon bañ mais au contraire waa Ndakaaru ñooy bañ. <laughs> Euh, est-ce que est-ce que est-ce que sax loolu waa Fass nangu nañ ci est-ce que boole jël Ndakaaru écrit Ndakaaru ak ni mu toll nga jël ne da leen di boole est-ce que loolu waa Fass am nañ man doon naa def micro-trottoir mais gars yi ne nañ ma bés bu Ndakaaru demee ci Fass Ndakaaru moo ciy seey. <laughs> yàlla baax na yàlla baax na.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 waxuma la nga def yëf Eumeu Sène junior de analyse laa wax. waaw bala maa analyser dama koy ñaanal moom Tafa. yàlla may ko ndam ci combat bi. mais combat la. ñoom ñaar ñëpp. combat la am nañ combat. Boy Niang am na combat Tapha Tine am na combat ku ci ne nag da nga am monin. Boy Niang moninam ku ne xam na ne ah uh, dafay saj comprendre nga dafay saj combat bi nag Tafa ku ci ne xam na ne. bëre mën na ko mën na ko macha allah Tapha ba tey li mu war a bëre bëreegu ko ba tey bëreegut ci làmb. mais mais mais da nga dama dégg léegi nga ne euh, Boy Niang day sàcc te kii di Ama Baldé dafa sàccoon Tapha Tine est-ce que loolu tamit euh, nekkul loo xamante ni nii la. waaw Tapha moom yaakaar naa ne pare nañ ko ci côté yëpp. comprendre nga Boy Niang day sàcc Ama Baldé dafa sàccoon Tapha mais pare nañ ci côté yi nga xamante ne si yëpp comprend nga pour préparer booy Niang comme ni muy bëree Tapha nag ku ci ne xam na ne ah mbër la mais xëj na saasu làmbam mooy demee noonu souvent mu def nii souvent mu def nii comprendre nga bu baax mais dama la ne ah mu gaaw mu yéex ñu ngi ñaanal Tapha Tine yàlla may ko ndam. su ma ñëwee ci Bombardier ak ak ak ak ak Balla Bombardier ak Balla Gaye moom maanaam combat la rek Balla moom comme comme ni mu ko daan waxee bala moom maanaam day dafa nekk nit boo xam dafa am fula ci li muy def waaw mais nag bu yàlla dogalee nga mën a tenir moom deux minutes yooyu boo ko teniree moom mën cee gën waaw te Bombardier yaakaar naa ne fii mu toll nii yeewu na de. waaw waaw yeewu yaakaar nga ne kon yow fi mu toll nii man bëgguma wax wax ji na naka nga ko gisee. Bombardier yeewu te Balla Gaye boo teniree. waa yeewu na Bombardier yeewu na xam nga tey nit ki di nga nekk ci benn yoon boo xamante ne si mm, mu wóor la ne lii nii sa teraanga ci la nekk noon nit ñi dañuy ñëw wax ak yow am na ay fautes yoo xamante ne si dootoo ko def te dama yaakaar ne Balla Gaye parewul pour pour pour Bombardier daanaat ko yaa ngi dégg mais Bombardier tamit parewul pour Balla Gaye fayu tamit noonu la demee làmb la daal. <laughs> soo amoon kàddu yu mujj loo ñu wax. Ah, di santaat yàlla bu baax. di ñaanal sama yaay mu yàgg fi trop mm, di ñaanal sama papa yàlla xare ko ajana di nuyu suma dëkkandoo yi ma dëkkal fii di sama mbokki mbër yi ñoom Mor Kanka Thiaw Essar Koña 2 Trompeur Boy Ndiane Armée 2 Tafa Mbër numéro 2 di nuyuwaat sama waa dëkk nag waa Newraan waa Touba Toul waa Réewma wa Ndiane Réfane ker la man ker caaf di nuyu sama mag ajo Moussa Yeri di nuyu sama gaa yëpp di nuyu waa koñ bi ñoom laay bébé ñoom ñëpp maa leen nuyu comprendre nga parce que tey dañ fi toog pour waxtaan ci li nga xamante ne si moo jëm ci mbiru làmb yaa ngi dégg ñu ngi sant ñi ñuy jàppale ñëpp képp koo xamante ne si yaa ngi jàppale Tonnerre rek maa ngi lay sant di nuyu sama doomu ndey alin Sey di nuyu sama xarit nag sama mag. borom Argentine daam Thiam maa ngi koy nuyu bu wér a wér a wér waaw maa ngi koy nuyu di ko ñaanal yàlla si borom defal ko ba mu delsiwaat fii ci senegal di ñaanal réew mi jàmm sëñ taxa yàlla na fi yàgg te di ñaanal sëñ Abdou Karim Mbacke borom makaarimal axlaa xam man taalibeeb sëñ Fallou laa waaw taalibeeb sëñ Fallou laa te ku xam sëñ sëñ Abdou Karim xam ne mooy Serigne Fallou waaw maa ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool te di ñaan balaa bi yàlla jëlee ko fi ci jàmm ak salaam. waaw di ñaanal ñi feebar yàlla defal leen jàmm ñi génn àdduna yàlla xare leen àjjana di nuyu ñëpp képp koo xamante ne si yaa ngi nuyu yaa ngi béggee Tonnerre rek maa ngi nuyu di nuyu sama doomu ndey Rijaal Diop ay miiru jib sama rak Mor Diouf ñoom ñëpp maa leen nuyu bàyyi ji li baax daat maa ngi leen nuyu ñoom ñëpp di nuyu waa wasaare làmb di leen ñaanal yàlla suñu borom mi nga xam ne moom moo am te moom rek moo am doole mu dem ba lii nii mu nekk tele bu mag jëm ca kanam ci barki Serigne Fallou jërë ngeen jëf. gis ngeen ni lay demee ci wasaare làmb di jox dig daje ba beneen yoon Adama dama xaw a soj nag mais mooy loolu kontaan naa ci yow jaajëf. Thank